Bienvenue sur Salam Vision. Salam Vision laa leen di tegal nii jàmm ju ànd ak vision fu sori waaw mooy Salam Vision yéen ñi xamante ni. yi ni koy seetaan dama lay diggal nga teel a dem gaaw abonné ci Salam Vision asalaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum comme ni lañ koy waxee rek saa su ne rek bu léegi euh, ñu ngi fi nga xamante ni mooy Touba Touba Mbacké képp ko xam Touba Mbacké xam ni sëñ Touba rek mooy ki nga xamante ni tey ji ñun askanu tey ji képp ku jug ne jërëjëf Serigne Touba waaye kër jàkkaarloo nii tey ngeen gis ko tey muy sëñ Xaadim mi nga xamante ni waaw lépp lépp yàlla la tey jii mu nekk ni koo xamante ni tey fekk nañ ko tey ci biir këram tey jii ñu am askan yoo xam ne tey dañ leen fee fekk si donte xat na sax waaye dañoo ñaan rek ngir mën a jàlloo ak moom ci li nga xamante ni tey ci lañ ko fekk si sëñ Xaadim balaa booba dañ lay bàyyi nga nuyu waa Salam Vision bàyyi tamit nga nuyu tamit ñi lay seetaan. waaw auzu billaahi samiiʿil aliim mina sheytaani rajiim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabi ajmain wa man tabiahum isaani ila yawmi din allahuma salli ala sayyidina wa sallam waaye ñu ngi nuyu àdduna bépp di nuyu rawatina diaspora bi Salam Vision ñu ngi lay nuyu di nuyu képp koo xam ne Sénégal nga rawatina dëkk bu tedd bi di ñaanal Serigne Mountakha euh, Mbacké yàlla na ci yàgg te wér ak mbooleem njabootam mboolem képp koo xam ne nitu diina nga nekk si àdduna bi. alhamdulilah yéen a ko dégg donte kilifa gi nuyoo na ba pare sëñ xaadim dëkk bi yëpp dañuy lam-lame sëñ xaadim sëñ xaadim bu la seetalee da gis sëñ xaadim bu la ñaanalee ñëpp xam ne carrément kilifa gi ñaanal na la te gis nga ko dëgg dégg dëgg sëñ xaadim mooy kan. waaw dëgg-dëgg sëriñ xaadim moom euh, mën nañ ni ab jaam la nekk taalibe bu xeebu nekk taalibe sëriñ Touba. Euh, sëriñ xaadim daal mënut a weesu taalibe <laughs> kon daal taalibe rek la nekk jàmm xeebu dëgg dëgg sëriñ tamit ci seet ci seet ñu bari dañuy seet mais nekku ne ak ci anam yaa ngay seetee nit ki mën nañ laa seetal léegi gisal la léegi am ñoo xam dañ lay seetal ne la même mu li si xaar am ñoo xam ne dañ lay seetal ne la même ñaari fan wala ñetti fan ak nga ñëwaat fi dëgg-dëgg sëñ xaadim tey boo jàkkaarloo ak moom tey ji mu wax la li nga xam ne moo nekk ci yow sëñ xaadim nan lay def tamit ak lan lay jëfandikoo ba tax tey ji boo jàkkaarloo ak moom rek dëgg-dëgg li nekk ci yow ci saa si mu wax la waaw xam nga seet dafa nekk euh, ay mbir seetkat bu nekk dafa am si branche u yonente bu euh, bi nga bàyyi ko ndax yonent yi yàlla borom bi subhaanahu wa taala yónni ku si nekk ñu si ëpp dañ daan faj ndax bu fajul amul yonent yëpp ay fajkat lañu woon mais ku ne ak façon bi nga doon fajee waaye ku ne ak façon bi nga doon seetee moo tax seetkat bu nekk boo xoolee say mbir da ngay gis ni yow yaa ngi jokkalewu si branche yonante tel beneen biit mooy nit munoo ko euh, euh, seetal te fekk ne xamoo nit ki ndax dafa am loo xam ne li nit ki di jàng la am loo xam ne nag lu yàlla di def si nit la ndax ñun pour ñu seetal nit mun naa ne aajoor ñuy tijj loolu dañ koy wax chaque jour bu ñu ne xoolee nit rek xam nañ mais nit ñi ñoo bëgg koo xam ne da ngay tijji fii di yëngal di def affaire loolu la nit ñi gëm kon dañ leen si fekk si mais buñ nee jàkk nit rek mun nañ ko wax sa euh, feebar bi koy rey loolu loolu yaakaar naa ni moom àdduna bépp xam nañ ko euh, beneen bi it euh, pour nga mën a seetal nit it dëgg bu fekkee da koy seet il faut nga am xam rawxaanam ban rawxaan la waaye tamit xam tamit ban biddiw ak ban siifur la parce que si rawaxaan ak biddiw si ngay mën a connecté xam ban bis la nit ki juddu lan la nit ki war a am bu fekkee dina am njaboot nga xamal ko di am njaboot ñaata lay doon nga ne ko nangam lay doon góor ni ñu doon wala jigéen nga xamal ko ko dundam gi lan lan lay war a am dina am dina tukki du tukki dina gudd fan du gudd fan lii moo koy gàllankoor lii moo ko war a am fii fukki at lii moo koy dal destin nga génneel ko li mu war a moytu yi nga wax ko aussi tamit si ngay mën a xam tamit ban sarax tamit la nit ki Euh, war a génnee ndax nit ñi nuñ utee noonu la saraxu nit ñi tamit utee loolu tamit loolu tamit euh, dafa am solo. dégg-dégg yéen a ko dégg li nga xam ne tey sëñ Xaadim wax na ko sëñ Xaadim ñi nga xamante ni tey jii yàlla suñu borom dafa dogal ni dañ leen a jëf jëf joo xamante ni jëf ju bon la maanaam ci liñ koy mën a waxee ci baatu olof donte dégguma olof waaye dinaa ko xaw a maanaam am nu ma la ko laajee tuuti ñi nga xam ne dañ leen a liggéey te liggéey bañ leen liggéey dem nañ fu nekk ñu seetal leen te bu ñu waxee dañ dañ leen seetal ne leen a ah, liggéey la kat waaye mënuñu koo dindi waaye tey suñu xadim tey ku jàkkale woon nag moom tey jii moom mu xam ne kat liggéey boobu noonu kat wër nga fu nekk te liggéey boobu nit ki mënu koo dindi ci moom tey jii suñu xadim boo jëflante ak moom est-ce que moom si jëm boppam pare nañ ngir dindi leen liggéey boobu nga xamante ni incha allah rek moo nekk si yow. xam nga am na nit ñoo xam ne ñooy liggéey seen bopp xam nga yenn saa nga seen nit mu ne man dañ maa liggéey lu ma laal mu yàqu parce que dafa am sarax bi muy génnee te war koo génnee loolu day am tey bu fekkee ni yow parce que ñeent nit ñi ñu am mooy ki nga xam ne dafa am rawaxaanu ndox ki am rawaxaanu ngelaw ak ki am safara ak ki nga xam ne euh, dafa am euh, rawaxaanu suuf léegi nag tey bu fekkee ni yow borom rawaxaanu euh, ndox nga yow ngay bëgg a tuur di tuur deret da ngay da ngay xabtal sa bopp léegi pour nit liggéey la jàpp la day nekk loo xam ne lu yomb beneen bi tamit am na ñoo xam bu ñu takkee jaaro per bi ñuy takk couleur per bi moo leen di tëj seen bunt da ngay seen nit koo xam lu mu yor du taxaw si loxoom fekk na am na couleur gis nga ni nga xamee eh, nit ki ak rawaxaan nit ak saraxu nit ki noonu la couleur nit ki amee moo tax nit dina ñëw ne dañ maa liggéey man la changer sa per sa couleur per bi nga dem léegi affaire yi nooy am na nit ñoo xam nag li leen di tëj nag mooy mooy yàlla am na nit koo xam moom mooy yàllaa koy tëj parce que rawaxaanam nangul mooy yàlla kooku mënoo ko ñaanal kenn mënu ko ñaanal parce que rawaxaan bi nag beneen bi tamit am na ñoo xam tamit dañuy am rab boo xam ne bëggul sa avenir moom moo lay tëj am nit koo xam ne tamit jinne moom moo koy tëj maanaam du liggéey rek mooy tëj moo moom mooy yàq nit tey nit day tëdd euh, rab bi nga àndal bëgg yow nga tardé maanaam war nga tukki ba war nga am dara ba war nañ defal dara te te rab bi yow amul doole pour yàqal la léegi nag fan la ko mën a jaar rawxaan bi léegi day tëdd guddi gént la nga wan nga am benn sarax boo boo génnee si gént nga dee ku mel ne man mun la saraxe ko boo ko saraxee yow nga wàññi doole yi rawxaan bi su ko nit ci mën la liggéey jàpp la léegi nag yooyu il faut ñu xam exact yi koy indi ba noppi doo doogu ut li saafara mais liggéey bu ñu mën a def nit bu mu mën a doon ci àdduna mën nañ ko diini delloo kii kii la ko defoon maanaam nga jug tey ki la ko def tëdd suba loolu moom yaakaar naa ni am na biteel yoo xam ne un litre yoo xam ne at bu nekk benn yoon lañ koy def wala ñaar yoon sangu tey xam say noonu tey loolu yaakaar naa ne àdduna bi xam nañ ko suñu. allah akbar euh, donte euh, yéen a ko dégg yéen ñi nga ne yéen yi seetaan dafa am loo xam ne nag dafa am mooy maanaam ñi nga xamante ni dañ leen di dégg ci ay tur dégg leen fu ne te teewul damay dégg ci ay nit ñu ne dem nañ ci diw kat seeti nañ ko defal nañu ñaan waaye gisuñ ko. ci ci ñenn ñi parce que man ma wax dëgg sama émission donte junj la nag waaye am na loo xam ne tamit nag du ma ko mën a leeral nag xëy na yow mi may seetaan di nga mën a xam ne may wax ñenn ñi nga xamante ni maanaam dañuy woote mbir mi nga xamante ni dafa nekk ci yéen te ngeen judduwaale ko te ngeen dond ko te mu nekk ci yéen te ñoom ñi nga xamante ni dond ko dañoo xëy xëy rek feeñ ñooñu tey ji lan nga leen di digal ci métier bi nga xam ne tey incha allah <laughs> waaw ci nga nekk nii. waaw il faut ñu ñu ñu bañ a ñu ñu séparer bi fajkat ak ñaankat ak sëriñ ak nitu yàlla bokkul fajkat moom faj lay def jëli garab fii comme docteur loolu ku nekk mën nañ la jàngal garab yi boo composé loolu fajkat la ñaankat nag moom mun na ñëw di ñaan nga ne damaa bëgg a tukki mu defal lay ñaan damaa bëgg am projet naa mu defal lay ñaan sëriñ nag moom mun na bañ a nekk di mun na la laaj ndox comme tey nga jóge fii dem sëñ Abdou Samad baa dem ku si mel ne sëñ Abdou Karim baa sëñ Cheikh Oumy Mbacke baa ak ñeneen ñoo xam ne dañuy ay kilifa lañ ñoon ay sëriñ lañ ñun la indil ndox ba indil suuf xam sëñ Saali Mbàkke da da daan ñëw ñaan mun la ay ñaan xajut si loxo xam loolu bu defee ko waxee ku ku ku ku xelam gàtt danaan kii loolooy lan waaw léegi nag ñooñu ay ay ay sëriñ lañ mais nag nitu yàlla nag moom loolu beneen affaire la kooku dafa am lii la fay yóbbu ñett yi mun naa mun nga ko judduwaale baa mu dab la baa nga dee doo ko xam kooku nag moom foofu la mbiri nekk parce que xam-xam moom am na ñoo xam ne du ay jullit dañ naa mu neexee taw mu naqaree mu taw te pourtant ni ñuy def ñi ngi ci am résultat kon loolu yér yërmande yàlla la ñëpp mun nañ ko am mais euh, euh, nit ku nekk euh, pour mu mun a def dara mu réussir na fekk moom mu ne si moom mu doon dëgg gis nga maam Cheikh Ibrahima Fall dafa ne naxe ñetti fan la bis bi nga naxee nit ñi bis bi ñu la xamee bis bi ñu la bàyyee waaw léegi nag dangay xool nit ki bi mu tàmbalee di faj ba bi mu àgg ndax mi nitam ñi ngi yokk wala ñi ngi dellu ginnaaw léegi si nga xam ndax naxkat la parce que bu fekkee dëgg la nit ñooy sa rajo doon sa télé. moo tax moo moo tax pour nga gis ñu si télé yi problème la waaye ñun ñoo ëppi malade Sénégal parce que bu fekkee boo xëyee balaa ngaa añ minuit une heure balaa ngaa reer cinq heures du matin cinq heures du matin dama wax nga xool fajkat yi ña ngay nelaw waa léegi. te génn ñu si télé yi demuñu fenn dañuy toog rek ba pay na képp ku aajoom naata faj yàlla bu ko yàlla indi si ñun. allahu akbar kon yaakaar naa ne kon yéen ko dégg kon tey ji ñun tamit suñu aajo faju nañ parce que li tax ñu ne tamit ñun suñu aajo faju nañ ndax tey dégg ko ci biir wax képp koo xamante sa aajo tamit naata faju yàlla boo fi ñëw ñun nag yàlla suñu borom dogal nañ ñëw nañ fi kon gëm naa ne kon suñu aajo kon fajoo nañ ci biir kër gi tey ji sëñ bi comme que am na loo xam ne leeral nga ko tey ci biir wax ji xam naa nag lépp tamit xajul tamit ci biir émission bi dañ koy tënk rek ndax xam naa ne bis a ngi jot dinañ fi ñëwaat ci yeneen domaine ak ci yeneen i mbir yoo xamante ni day wute ak tey ji ci li ñuy fekk tey kër gi nag xat na lool fekk nañ fi ay malade yoo xam ne ñu ngi feebar tey ji incha allah rabbi tey ñu war a jëflante ak yow tey ji dañ lay bàyyi rek dernier kàddu bi ak loo koy tëjee te ñun tamit bu ñu fàtte tamit ci ñaan bi waaw di bu baax a baax a baax euh, di ñaanal àdduna bépp jàmm di wax ni na àdduna bépp boole xol yi ñu nekk benn ndax yaakaar naa ni pour euh, àdduna bi jàkk il faut que xol yi bokk bu xol yi àndee rek nit ñi bëggante yéenante jàmm rek yaakaar naa ni loolu mooy euh, garab bu ëpp doole garab bu ëpp dool ci àdduna moom mooy euh, moom mooy yéenante jàmm ibbi sa xol yaatoog si nit ñi waa di santaat bu baax a baax di gërëmaat di ñaanalaat tamit sëriñ Mouhamadou Mountakha Eh, yàlla na ko yàlla gën a may wér eh, gën ko yàggal ba mu yàgg ñoo jiite eh, ndax liggéeyam rafet na ndax ku ne xam na ni mbégte bi mu indi si àdduna bi loolu bi sëñ Sidi Muxtaar ñëwee fexe ba ba lëkkale diine yi mu nekk benn mu ñëw nag fexe ba nit ñëpp am jàmm am mbégte tey boo xoolee tey koo gis rek dangay séen ñi da ngay yaakaar ñoom ñoo bokk benn fu ñu nekk te fekk ne lépp rek moom mooy def loolu yaatal lépp borom képp koo xam ne eh, ziyaare moo la tax a jug bul ñëw waaye képp koo xam ne da ñëw pour ndimbal ñëwal yaakaar naa ni loolu nekkul lu yomb kon nag mi ngi woote si nit ñi nañ génnee li ñu yor dimbali askan bi te loolu yaakaar naa ni dina baax di santaat bu baax suñu wayjur eh, soxna Absa Jaxate di ko ñaanal jàmm ak suñu soxna soxna ay dëggay ak di eh, ñaanal tamit suñu xalifa suñu xalifa général sëñ Massamba Ndiaye Pape nekk Kaolack moom mooy mooy sunu baay mooy suñu xalifa nekk tamit nit ku uh, koo xam ne wax dëgg yàlla uh, ku ñemee ñeme uuf ku ñeme teete waaw te xëy na bu ñu demee ba toll fii yar bi ñu yar li sëñ Fall doon wax naan sëñ Modou Safa naan ko man xaw ma xaw ma xaw sëñ Touba yaay sama baay waaye ñun it xamuñu ko xamuñu uh, Ibrahima Ndiaye moom lañ xam di ñaanal tamit euh, euh, euh, jëwrin Omar Gueye ak soxna yi fi yi ñëw ñëpp seet si ñu <laughs> ak Baye Fall vérité aussi di ñaanal waa ADS sunu yaay soxna ummaa jigéen mu nekk jigéen gu mën góor nekk gaynde nekk koo xam ne wax dëgg yàlla ku am fit te ñeme fi mu jëm waaw nekk vice présidente ADS alliance pour le développement du Sénégal ak secretaire général Souleymane Fall ma euh, Faat Jeng ak sëñ Fallou Mbacke ak képp koo xam ne nag euh, nekk na Baye mam Mama Gueye nekk ki nga xam ne moo yor euh, wàllum entrepreneuriat waaw di ñaanal àdduna bépp jàmm di leen wax ni asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu di ñaanal télé bi yàlla def ko mu nekk télé bu gën a mag salaam Vision kon yaakaar naa ni salaam boobu moom moom la Sëriñ Tuubaa waxoon ni mooy gën àdduna moo gën alaaxira ndax biñ ko laajee yoon saa salaam ndax am na lu ko gën mun leen waaw ñun leen ñu ne ko moo gën yoon saa salaam mun leen islaam ñu ne ah, lu tax mun leen islaam a tax ñu yónni ko ñu ne ko islaam ndax am na lu ko gën Serigne Touba waa am na lu gën ñu ne lan mun leen dugub ndax ku amul dugub eh, eh, ku lekkul doo tal islaam ñu ne ndax dugub am na lu ko gën Serigne Touba am na lu ko gën ñu ne ko lan mun leen jàmm ku amul jàmm. doo tala lekk bay def dara ñu noon ndax am am lu jëm gaa jàmm mu ne jàmm moo gën àdduna moo gën àllaaxira kon nag salaam bi yàlla na ko yàlla deful <laughs> def ko mu bokk si télé yi gën ci télé yi kon di wax xayral la naa wa saran ala ahdaana alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu